Abiba Cob gannaaw ba ñu euh, séddale ba pare ñu gis ne séddale premier jour bi jàll na ba nga séddale ba pare ban yëg-yëg nga am. waaw dama kontaan parce que atteindre nañ objectif bi séddale nañ fi plus de 1000 ndogu genre euh, ay 1300 yooyu donc euh, affaire bi jeex na alhamdulilah alhamdulilah. yan jafe-jafe nga jànkuwanteel si séddale bi. bon amul woon jafe-jafe a part que boo xam nga su bëree day diis. donc dañ daan jël benn partie bi yóbbu après war a delluwaat carrément ñëwaat. am na ay nit yoo xam ne ah, eh. waroon nañ ndogu xëy na waroon nañ leen jox fekk ñoom ñu romb ak seen oto loolu rek moomu ci métti métti gaay yëpp mais à part ça ça va jeexal nañ ko alhamdulilah yeneen yi si des naka nga koy programmer waaw yi ci des moom c'est la même chose on va beaucoup plus s'organiser ñu xam euh, fan nañ am faay tey parce que premier jour yi c'est pas très évident parce que voilà après un an nañ koy def chaque un an donc euh, les premiers jours c'est un peu compliqué dañuy réorganiser wu et incha respect maintenant xam ah dëgg la xam nga euh, man euh, du man rek ah. bu doon man rek la xëy na du am ampleur bi mais jeune yëpp la sama waa team euh, samay nit samay am di jàmm gars yëpp ci jàpp. donc bu doon man rek xëy na du yegg sama koñ laay yem jox quatre personnes mu jeex mais gars ñoo boole seen doole ah am yeneen bu rafet tamit ci weeru koor bi incha di ñaan yàlla mu fay ñu suñu xol. voilà incha allah bi ci topp moom euh, Medina la la 23 incha allah di joxe rendez-vous ñëpp foofu waaw di wax euh, gars yi nañ ñëw nañ ñu gën a jox d'ici là ñu romb 2000 yi 2000 ndogu yi ñu joxe bëgg naa loolu de incha allah. partenaires yi quoi. voilà partenaires yi. voilà voilà partenaires yi entre temps xam nga parce que jour yaa ngi ñëw donc bu leen neexee à tout moment mën nañ ñëw jàppale. affaire bi en tout cas yéene la ku ñu yéenee sa sa benn affaire rek mën nga ñu ko indi mu ñu yokk ko ci lu ñu am incha allah gën a yaatal affaire bi en tout cas kaay ndogu kaay ndogu Sénégal la.